asalaamaaleykum mbokku internet euh, yi ñu bàyyi xel ci jamono ju nekk saa su ni ñu koy defee saa su ne tey nag mu seen jotaayu jàmm jàmm rek ci euh, li nga xamante rek ci kàddug lislaam mbokk ni ñu koy defee rek saa su ne Mouhamadou Lamine Muntaka euh, dellusiwaat fii nga xamante rek fekk siwaat fii jëmm ju baax ji di Cheikh Barham Sang Ndiaye tabarkàlla yaakaar naa ni di sunu soppe di sunu xarit di sunu wóolër itam ci wàllu bu baree baree bare balaa ñuy sore dañ koy daal di yëkkati kàddu gi jox ko sang bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu. salaatu wassalaamu ala rasulillahi ñu ngi sant yàlla bu baax di amati mbégte bu wér ak kontante ci teew bi ñu teew fii tey di walla waxtaan ci wàllu diine diine mooy comme diine ñun ci lañu yëngatu te mooy lislaam alquran jàngal ñu ko ne yàlla mu ne ku sàkk diine bu du islaam da ngay perte diine ci moom mooy lislaam kon suñu mu taxaa ñu leen nuyu baax di la dala ci loolu di am ci yow mbégte loolu ak kontante ci sa liggéey bu rafet bi ngay def nii ci àddina bi ci askan bi yëpp kon ñëpp bëgg ñëpp xam am xam-xam ñoo nekk ba jërëjëf euh, Cheikh Barham Sang Ndiaye euh, ñu bëree bëri xam naa fu muy ubbee bunt bi xëy na euh, amaana tey ni ma koy waxee àddinaa li ni mel tey gis nañ moyen de communication yaatu na tey am na ñoo xam ne tey tey à travers tey ci jàmm ji info ñu ngi soog njëkk jàkkaarloog Cheikh Barham Sang Ndiaye tey su ma la doon laaj tey kan mooy Cheikh Barham Sang Ndiaye loo ñuy wax yow tey ci sa bopp xëy na xëy na du lu yomb nag. waaw salaatu wa salaam ala ñu ngi santalu baax ci laaj bi ñu laaj mooy laaj boo xam ne xëy na euh, néexul tontu ndax soo laay nekk yaay kan dëgg-dëgg pour mu wax mooy kan day jëfe xëy na ay isaara rek sanga njaay jaam yàlla boo xam ne nangu na ak njaamam ci yàlla jaam la boo xam ne it mu ngi sujjoot daa iman di nangul borom bi subhanahu wa ci ay xikmam ci ay dogalam diine bi muy yëngatu mooy lislaam te moom la yàlla daganal ci mboolem julit yi ak ku ni ko julit ne ñun ñëpp nañ sàkku lislaam ndax sàkku beneen diine bu islaam dafa jomb ci yàlla mu lay fay mu lay fay aljanaam lislaam daal la yàlla wax ne ku sàkku beneen diine bu islaam yomal xam na nga perte diine ci moom daal yàlla mooy lislaam lislaam moomu nag mu ngi bëgg yaatu donte bëri na ay noonu lool nag waa ñun waa lislaam ñoo war góor góorlu ku ay noon yaa war a fagardu daa iman sang njaay nag mu ngi yëkkatu ci islaam ci biir islaam encore mu am beneen bànqaas tariqa génn ci biir islaam am na ñu bari ci islaam gëm islaam ba pare ne tariqa bidaa la te bidaaya bidaa li muy firi mooy lu bon ndaxte kullu bidaatun dalaal kon mënta baax te ma gis na alquran moom yaxal na tariqa ci ay yoon yu bëri waaye ba ci gën a wér quran day wax ne wàll la istiqaamu ala tariqatin la asqanaa maan qadaxan ku jàng aaya bi pare ne tarixa bi daal de man xaama kon yow yaay kan te ñi fi indi tarixa yi ay kalifa lañ <laughs> de même protocole ñoo indi tarixa yi ay jaame yu baax yu sell yu am xam-xam yoo xam ne yàlla gërëm na seen mbir saara baatin ñooñu nag ku leen bëgg neenal su ko raaka yow yaa xamul li xew yaay bëgg a neen tarixa lu wér la ci islam waaye tarixa bi may uyoo nag man tey mooy tariqa cheikh Ahmadou At-Tidjani radiyallahu anhu waaye ci biir tariqa cheikh nag aussi amul leneen fa bala am na beneen ndollal boo xam ne dëgg-dëgg seetaan jàg euh, daana ko déclaré ci ay njabootam muy faydu yàlla mu nga feeñ na ci loxo Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahim a ñasi ak Kawlaqi ba tey ci lay may sang jaadaa mooy lii mu yeggut ci islaam ci iman ci ixsaan ci lu wér ci xam-xamu zaahir ak xam-xamu baatin ak xam-xamu baatinul baatin maa ngi leen di nuyu macha allah Cheikh Baraham sang fi nga fi nga daanelee noonu sax dafa am solo ñu amaat ci lecture bi nga xamante ni euh, euh, euh, mën nañ ne Dembo Ndiaye muy kàddu gi nga xamante ni am na ay ojo yoo xamante ni gis nga marche bi nga xamante ni amoon na fi ci réew mi mu mel ni am na ay ay kaddu yoo xam ne ñu ngi koy jëmale ci magum lislaam comme ni ñu ko waxee mu mel ni loolu nekkul woon image yu Sénégal jamono gi ñu ngi yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci mag ñi ay ŋàññ yoo xam ni rafetul lan moo ci sa taxawaay ak sa yëg-yëg ci ci kaddu goo ci mën a indi. jërëjëf sëriñ bi. ay Seydi Muntaqa sa tur bi moom am na taar am na rafet waaye woyu na ak ak tur yi nag ndax tur woo dégg rek dafa nekk li tax di ismi wal musamma dafay benn ak ki nga ko tuddee kon sëñ Muntaqa kontaan toj ci bi laaj gis nga lislaam li ko tax jóg mooy jàmm baat bi rek nañ ko sedda para islaam baatu bu jàmm lay firi ñu nga xote ci li ñuy wax jàmm salaam te jàmm nag bu fekkee ne islaam ci lañ ko mën a amee kon ñooñu islam ñun waa islam lan mooy suñu war a gar ci islaam ku ne taal jàmm jëmee sa moroom loolu moo tax kat islaam ñu mën ko dëggal mais bu nekkee ne nag ñun waa islaam ñoo am problème kenn ku ne di xas sëriñ jël audio bu ñaaw jëma ci jàmm yàlla boo xam ne liggéey na ba yàlla gërëm ko bàyyi na fi loo xam ne it. xam nga ne yow danga am problème dangay ngay iñaan rek wax dëgg yenn nag iñaan la yoral ma laa ko tiggee waaye jaamu yàlla yi fi jaar wul yàlla yi liggéey islam ba yàlla gërëm leen ñu bàyyi fi njaboot njaboot goo xam ñu ngi liggéey kon seen liggéey ci ñoom kooku soo mënta wax jaajëf bul ko xalab tey nag li ñu sonal xam nga lan la mooy internet bii sonal nañu lu bari am na nag fu mu baaxee mais bëri na lu yàq aussi. ndax tey ku nekk ku nekk tey da nga am possibilité am micro di wax loo neex da nekk fu sori sax di jam is di jam benn jaam yàlla boo xam ne kii xam nga ne moo la gën foofu xam moo gën sa baay moo gën sa yaay moo gën sa askan. waaye nga toll fële nag di wax ci wax ju ñaaw joo xam ne kim da yàlla loolu nag ma li ma ci laay biir sama bopp ak du ko laay bi jaam yàlla yi mais képp koy def li muy firi mooy ku texee di ngay doon. jam yàlla bu texe nga jël ci def dara di wax lu ñaaw li muy firi mooy ku texe di ngay doon ndax da tax nga texe di mooy yàlla xiir gi mu la xiir jam yàlla bu baax boobu li mu liggéey ba yow ko ci wax lu ñaaw loolu mooy ak texe di loolu mooy ak texe dëgg loolu nag man li ma ci lancé borom réew mi as mooy ma Seydou Macky Sall comme moom mooy buuru réew mi dëgg-dëgg lii am na ci baat fu mu nekk nii xam naa nag maandu na woon trop. ci façon diggante diine yi ma ci bañ cee wax waaye dafa lépp na tuuru te lii mën a taxal nag réew mi parce que comme yaay moom réew mi yaa ko ilif lépp luy xam ne dafay taal réew mi yow war nga caa gaaw a wax wolof nday wax ne ma ngi daan wax bu njëkk ne ko ca bala ngaa lakkale mais soo xaree ba lakk am nga door bu ko du sotti waaw euh, ça ça trop tard kon Macky Sall ñu ngi lay vraiment ñaan lii moom. na nga décret boo xam ne dañuy wax ci lii ku waxatee mag ñi dara ñëw taaj la lu tax nga wax nangam soo mënta am lu leer ñu jaar la fa ñu war a jaarlee ku tooñ loo mooy dëgg loo mooy dëgg kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci bii laaj laaj bu ñu bu xormaale ngi nii bu baax ngeen nii te ñëpp dañ ci war a wax xale boo xam ne xamuñ fuñ dëkk xamuñ koy bàyyam xamuñ koy yaayam mu jël micro di wax ci njaam yàlla lu baax lu bon kon pardon njaam yàlla kooku war nañ koo war nañ ko war nañ ko duma loolu mooy dëgg kon ñu ngi doon baax ci loolu. Euh, fi may daaneel rek ndax euh, dañ ko wax ci ay jamono euh, dañuy wax ni tey murid bi bu gisee tijaan bi yéene ko jàmm tijaan bi bu gisee murid bi xaadir bi ñoom ñëpp yéeneente jàmm lu tax ñoo ngi dox ci jamono jamono ngi dox di ñëw ndax amul ay ressources yoo xam ne sentir nañ ko ci réew mi ba tax dañu ne bu ñu mënoon jaar fii rek nañu jaar fii ndax gis-gis boobu te jàmm ba léegi rek loolu la diine yëpp di doxante mboolem tarix waaw xam nga loolu mooy moo am li wax nii moom moo am sax nag xam nga noonu fu nekk dafay jéem a jaar du bàyyi mukk noonu du ma sa baxi noonee lam ci ci ci jam yàlla yi lépp lu fu mu jaar rek mu bloqué rek mu jaar feneen islam ñi koy xeex ñépp tey ci waa islam lañuy jaaree ma jox exemple rek da ngay gis benn réew bu bëgg a dóor benn réew julli yi ñoo koy may baas seen réew yi mu def fa baas pour man jot réew mi pour duma ko ndax loolu islaam ndax mooy loolu mooy diine ndax li mooy war jàmm non julit buy xeex julit sam ne ñaari julit bu ñu xeexee sax ka rey ay kañ rey yëpp safar lañ jëm ñoo ko dee yonent bi ki rey man dugg safar waaye ki ñu rey mu ne ki ñu rey lu mu bëggoon rey la bëgg moom it dañ koo rey rek comme xeex am na rek rey la bëgg moom it waaye nag na xam tey na noonu islam yi fu ñu mën a jaar tey ba boole waa islam dañ ko def ndax dañ bëgg islam fay te nag Alxuraan nee na <laughs> wala mu tibb nuuru de. wala karal kaafiroon yàlla mën dana matal leeram de donte saay saay koy inkaar dana mat dana ko mat tey tey dana mat danay kapp dañ day kapp àddina ma la wax lii te islam muy mucc ci àddina bi ñëpp dañu nekk islam. lu mu xoolal xam nga mbi islam ak du islam xam nu mel bëree bëkkee mbaam kese la bëree bëkkee mbaam moom nañ xool rek xam nga jël fu muy mujjee ca mbaam lay mujjee bu bay gañee islam nag muy bukki bi tey day gañe mboolem diin yi fi nekkoon mboolem caay-caay yëpp maa la wax lii léegi nag tariqa yi tamit ñun ñoo war a muus kii nekk tiijaan kii nekk murit kii nekk xaadir kii nekk layen wala canama canama wala nangam nangam nangam ñoom xam nga fa lañ bokkee nañ seet benn baat rek doy na ca al akkul aqul muslim jullit mbokkam mooy jullitam point amul amul taawil ñun sax moo ko waxoon jeex na su boobaa nag kon ku nekk ñun nag ñoo bokk benn laa ilaha illallah muhammad rasulullah da nga ko bëgg jël bàyyi ma du sotti liñ bokk nag soo bëggee jël bàyyi ma du sotti ñoo bokk benn islaam muy islam ñoo bokk benn xibla mooy kabla tabaraka taala bokk benn téere mooy alquran bekk benn yonent bi yàlla ñun pourquoi ñu mën a ñu ñu mën a ñu mën a indi ay sànni suñu kon jàmm war na dox suñu diggante jàmm mën a xamu luy firi saa yoo xëyee yor loxo bi teg sa morom julli nga ne ko asalaamaaleykum xam nga lii leer na mu ne waaleykum salaam kon loo war a am jàmm kon kan nekk téye bu nekk bër buñ buñ buñ terrain bi ñoo ko bokk nañ nañ ànd fii rek du tey kenn ku nekk soo jibee sa kër nag am nga bànqaas boo jafoon rek waaw nga wax ca moom amul problème waaye pénc ba ne ci pénc bi nag ñoo bokk benn kalima bi bokk bi diine ji dañu war a juboo maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaar géero géer ñaa Mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na be